أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bokki jullit yi way woor yi way naafila yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara ci weer wu mag yi di leen ndokkeel di leen balu xaq di leen bal xaq ñaan suñu boroom nangul na suñu jaamu suñuy koor ak suñuy naafila jéggal na suñuy rëcc ñu ngi nuyu di siyaar di ndokkeel alxalifatul am cheikh Mouhamad al Muntaqa ñaan suñu boroom guddal aw fanam te def ci ak wér dolli ko ndimbal ba li mu naan ci liggéeyal diine liggéeyal yoonu sëriñ Tuubaa wi mu def ko te ñu ànd ko moom ndokkeel bu baax daairatu muqaddamatul xidma ci liggéey bu am solo bii nga xam ne mi ngi koy taxawee ñaan suñu boroom nangul leen ci barkeb téere bi ci barkeb weer bi ci barkeb sëriñ bi thème bi ñuy waxtaane ni ko sëriñ Maamar waxe xayaatul muslim fi zillil xukumatil almaniya jullit nu muy dunde ci suufu nguur goo xam ne nguuruk layik la kon jullit muy ku yor lislaam ñu dund ci suufu nguuruk layik layik mooy lu dul diine bu ñu ñëwee ci lislaam mooy lan dañu ñëw ci almaniya mooy lan dana daal di leer kon ana jullit buy dund ci suufu nguur googu ana nan la war a def lislaam baat bi ñu ngi jóge ci aslama aslama mooy koo xam ne dafa jébbal yàlla boppam aslama ci baatu tuba baatu baatu arab ci làkk bi rek mooy firi joxe sa bopp mooy firi toroxlu mooy firi wommatu ci ki nga jox sa bopp te mu yàlla suñu boroom suñu boroom moo waxoon sayidna ibrahim alayhi wa ala nabiyina alsalatu wassalaam إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين كل مسلم يقبل جلد مسلم يقول خليل فجبل يلا بطم di ko toroxlu di wommatu ci lépp lu mu doxal ci moom ak lépp lu mu doxal ci moom kooku mooy muslim lislaam nag lu lislaam ñu ngi koy xamlee bari na waaye bi ci gën a gàtt mooy diine ji nga xam ne lislaam mooy diine ji nga xam ne suñu boroom moom la tànnal jaam yi wàcce ko wàcc ci ab yonent muy mujj yonent yi sallallahu alayhi wa sallam wàcc ci it ab téere muy mujj téere yi di alquraanul karim kon lislaam mooy diine bi yàlla boroom tànnal ko jaam yi wàcc ci ci mujj ci ay yonentam mooy sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wàcc ci lu téere muy alquran alkarim su ko defee lislaam moomu bu ko ab jaam gënnee ci téye ko nekk muslim ku jébbal yàlla boppam ku jox yàlla boppam kuy toroxlul yàlla ci lépp kuy wommatu ci yàlla lislaam moomu làmboo ay ñetti mbir ñetti mbir Sëriñ Tuubaa wax na ne aqsaamu diini rabbina al imaani baadahu al islaamu al ihsaan xaaju diine ñett la liimaan lislaam lihsaan gëm yàlla di ko jaamu te di ko sellal di ko rafetal ba tey mooy aqida ak sharia ak axlaaq ñett yi ñu composé l'islam aqida mooy gëm yàlla ak mboolem lu gëm yàlla lamboo xeeti pas-pas yi nga xam ne dañ koy sàkku ci jullit yépp gëm yàlla gëm malaaka yi gëm téere yi gëm dogal yi gëm bis pinc gëm yenent yi te sharia mooy jaamu yàlla jaamu ko ci ibaadaat yi yim farataal ci nun di ponk lislaam yi ñu xam julli ak woor ndax asaka dem mag ak wéetal yàlla ñu war koo jaamu yi biñ ko jaamoo ci pas-pas yi gëm ko ci xol war koo jaamu yi ci suñu cër yi mooy di ko jaamu ci suñu cër yi ci ponk yi juróom wante it di ko jaamu ci ay tëraliinam moom yàlla ay tëraliin yoo xam ne da ko wàcc ci téeréem bi te bàyyiwul dara maa faratna fi kitaabi min shay la wax alquran ji mu wàcce nee na bàyyiwul ci dara loo xam ne day jëriñ ab jullit bàyyiwul ci dara loo xam ne dana lor ab jullit l'islam sharia ci boppam li ko tàmbalee ci politique ak gouvernance ni ñuy gouverner am réew sharia ñëw na ci sharia ñëw na ci économie ak finance sharia ñëw na ci atte ak ay droit sharia ñëw na ci askan wi ak ay relation ak lépp lu ngi nekk ci biiram sharia ñëw na ci njàng mi lu ñu war a jàng ak nu ñu ko war a jàng sharia ñëw na ci culture bi sharia ñëw na ci aar bi sharia daal bàyyiwul dara maa faratna kitaabi min shay ñu di ko tënk ci ñaari baat ibadat ak muamalat ibadat yi mooy li ñuy jëfoon ko yi ñuy jaamu yàlla muamalat yi mooy liy dox ci suñu biir ci yi ma tudd yépp lépp sharia da ca jëw muy benn xaajub lislaam ñetteelu xaaj bi mooy axlaaq sharia ñëw ci jikko yi yan ñooy jikko yu rafet yi yan ñooy jikko yu ñaaw yi yan ñooy jikko yi nga xam ne moom la borom bi gërëm lan mooy yi nga xam ne borom bi gërëmu ko comme ñu war a jaamu yàlla danaa muslim lañu jébbal suñu bopp yàlla di wommatu ci ay ndigalam kon war nañ koo jaamu ci pas-pas yi ci xol bi war koo jaamu ci jëfante yi ci cër yi war koo jaamu it ci suñu jikko su boobaa nag nga nekk muslim bu mag sikk boo xam ne liy daje ci lislaam daje na ci yow su boobaa nga mën a wax ne qul inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati lillahi rabbil alamin sama dund bi sama sama julli ak sama jaamu yàlla yi tur deret yi sama dund ak sama dee lépp ñeel na yàlla suñu borom kon gis nga lislaam mooy lépp yàlla la muslim mooy koo xam léppam da koo jox yàlla borom bi borom bi waxoon man ibrahim ci alquran aslim ibrahim joxeel sa bopp mu ne aslamtu lillahi rabbil alamin jibbal naa suma bopp yàlla jox ko léppam dénk ko ak njabootam ba fi tey ji ñun ñu bokk ci njabootam inna allaha astafa lakum diin suñ borom tànn na leen diine wala tamutunna illa wa antum muslimun bu leen dee mukk lu dul ngeen di ay jullit wala tamutunna illa wa antum muslimun dafa mel ne lu am lu muy dund ci biir mooy da nga dem ba metti waaye lu metti metti metti bis bu sa ruur yi tàqali ko sa yaram bi na nga nekk ci diine lislaam ci lu yàgg-yàgg bu leen faatu mukk lu dul ngeen faatu ci lislaam kon lislaam mu ngi noonu ci gàtt almaniya almaniya baat la boo xam ni boo ko dee seet da ngay wax ne dañ koo askane xam-xam al almaniya lu ñu askane xam-xam comme mbir mu xam-xame mbir mu xam-xame waaye traduction boobu dañ cee jóom dañ cee jóom ndax baat bi doon traduire moo doon sécularisme sécularisme moom la ñu traduire ci al almaniya ña ko traduire nag dafa am culture bu ne ci ñoom naa ci ñëw moo tax ñu dund ci waaye sécularisme soo ko dee seet ci mboolem dictionnaire tubaab yi lu tax tubaab yi parce que baatub almania du baatub l'islam du baatub culture l'islam almania baat la boo xam ne doxandin la fi noonu baat bi ci boppam di almania doxandin waaye it li mu wundu dinaa ci ñëw li mu wundu doxandin la fi noonu kon baat la boo xam ne lu nga dëkk ci tubaab yi ci Europe fi la juddoo fa lañ ko tasaare fa lañ ko dundee sécularisme soo demee ci mboolem dictionnaire yi day wax ne mooy loo xam ne laa diine loo xam ne yoonam nekkul ci diine dugalul diine nit ci bopp laa diine léegi ñu ne mooy duriwéew yi loo xam ne addina tepp la léegi ñu ne mooy loo xam ne laa silata lahu bi diin loo xam amul benn relation ak diin léegi ñu ne maddi lu matériel mooy mooy matériel léegi ñu ne laa ruux yi mooy loo xam ne jotewut ak dara li wax ruux ak spirituel su ko defee kon principe la boo xam ne dafa judd ci réew yi tubaab yi la ko jur amaana waxtu bu mayee ñu dikk ci waaye daal juddu na foofu di doomi tubaab li mu wax it mooy maanaam moom laalul lenn ci diine dugalul diine yi ci boppam yi fi addina képp la addina lay dox moom lay wax daray ruux nekku ci moo tax ñuy wax ne yarub ñoom yarub tarbiya al ladiniya éducation boo xam ne éducation laïque ñu wax njàngin boo xam ne laalul diine ci dara ñu wax pouvoir laïque wala gouvernement laïque nguur boo xam ne laalul ci diine dara di wax pensée laïque xalaat yoo xam ne laalul ci diine dara waaw naka noonu di wax culture laïque culture boo xam ne laalul ci diine dara kon almaani la baat la boo xam ne li ñu firi ca nasraan ci nasraan cosaan la mooy loo xam ne doonul ci diine dara diine it doonul ci moom dara léegi ba koy xoolal ñaar ñooñu ki nga xam ne ñooy sama lépp diine la al muslim sama lépp dama koo jébbal yàlla borom bi ci pas-pas yi ak ci jëfante yi ak ci jikko yi kii wax ne sama lenn du diine laa lu mu ci diine lenn kon jullit bi wax ne sama lépp diine la di bëgg a dund ci keppaaru nguur boo xam day wax sama lenn du diine kooku day ah baye boo mu fagaru te defaru te xippi bu baax علمانية باللاïcité. li ngi taxaw ci ñetti principe ñetti principe bi mooy fondamental mooy teqale diine ak réew teqale diine ak gouvernement diine yoonam du nekk ci réew réew yoonam du nekk ci diine muy benn bi gis mooy maanaam mbooleem nit ñi ku ci nekk am nga droit gëm lu la neex di bind lu nga gëm ci nañ ko dund ku nekk am nga droit gëm lu la neex la nga gëmit nga di ko di ko dund nañ ko dund ba ko ñetteel mooy nit ñëpp ñoo bokk yem ci kanamu droit kenn du gën a kawe kenn di ko gën a kawe ngir waasa bu bopp di ko gën a kawe ngir diina jum yor di ko gën a kawe ngir leneen kon ñett ñi moom la moom la moom la moom la laïcité wax ne mooy ay fondement am di ay président yi nga xam ne ñu gën a mag teqale diine ak nguur seen ku nekk am nga droit gëm la la neex te bind ko ni nga ko gëme naka nag nit ñëpp nit ñëpp ñoo bokk yem ci kanamu loi kenn du gën a kawe kenn ngir lenn ci yi ñu wax et kon bu ñu dul fee ci laïcité dafay wax ne dafa maandu ci diggante diine yi te bu benn diine teg ko ci kaw benn loolu lay wax dafa maandu ci kaw diine yi te bu benn diine teg ko ci kaw benn waaye bu ñu xoolee laïcité nga xam ne moom it projet de société la dafa ñëw di di protéger aw bindini di ba proposer benn façon yu gouverner nit ñi yor leen ci ay loi soo ko feetee moom kon li mu woote nga xam ne ne diine du dara ci moom laalul dara diine kon jullit bi nga xam ne li nga bëgg a dund ci suufuru nguur googu te fas yi ne lii ci lim tëral ca ay luwaawam moom laay wax ne kon jullit boobu day mel ni kuy dund ci benn poumon kuy kuy noyyi ci genn benn poumon day mel ne genn wet lay noyyee ndax lislaam kat ji mu gëm te alquran ne woon ko bul faatu mukk dund nga nekk di muslim te lislaam bi ñetti xaajam yooyu bi lenn loo xam ne mun ta tàqalikoo lu bëgg a dund ci keppaaru laïcité dana am jafe-jafe moo tax ma koy wax may wax ne day mel ni kuy noyyee benn poumon ndax daañu ko may ci keppaaru ko laïcité mu dund ay pas-pas ay pas-pasam yi mu gëm ba ñax na mu gëm yi mu gëm di ko di jaamu it ci mu gëm waaye nag lu jëm ci nag pàcc bi ci des pàcc bi islam bi te mooy ñu àtte ko ci li mu gëm ñu àtte ko ci sharia ñu àtte ko ci alquran kooku moom du ko am kon gis nga kon diine ci boppam dañ koy imposé bu dund daanaka genn wàllu diine dundal sa aqida say pas-pas ak say jaamu waaye bul dund sa sharia te muy àtte yi nga xam ne ak dogal yi nga xam ne mu gis si borom wàcc ci téeréem bi te it wax ne fala wa rabbik la yuminuuna xatta yuxakkimuuka fi ma shajara baynahum summa laa yajidu fi anfusihim xarajan borom bi dafa wax foofu ne fala wa rabbik mukk dafa ne mukk wa rabbik giñ naa ci sa borom yow Muhammad giñ naa ci sa borom borom bi mooy waat ci boppam di wax ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di wax ak ñun fala wa rabbik mukk giñ naa ci sa borom laa yuminuun gaañu duñu gëm seen gëm du mat mukk xatta yuxakkimuuka mbate ñu atte loola yow Muhammad fii ma shajara baynahum lépp lu xew seen diggante ñu ñëw ci yow nga atte lu ko may duñ gëm yéen sax ñëw nga atte wante duñu am benn xat-xat boo attee ba noppi dañuy nangu li nga atte ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت boo àttee ba noppi seen xol day nangu ne lii nga àtte muy dëgg duñ am benn métit duñ am benn weddi weddi xol wa yusallimu tasliman ñu def lañ waxoon ndax ay jullit lañu ñu jébbal seen bopp àtte bi jébbal seen bopp jébbal seen bopp yàlla bi nga xam ne mooy borom àtte bi aaya boobu soo demee ca ca ca bopp wax ja ba ngay tàmbale ci yaa ayuha alladina amanu atiu allah wa atiu rasul wa ulul amri minkum fa in tanazatum fi shay farudduhu ila allah wa rasul di wax yi ñi nga xam ne gëm ngeen topp leen yàlla te topp yonent bi te topp ñi nga xam ne ñoo yor kilifa téef yi minkum ci yéen ci yéen yéen kon yéen jullit ñi kon li ngeen gën moom ngeen gën ñoo ko yéen ñoo bokk ñoo bokk lu ñu gën ñoo ko yéen ñoo bokk lu ngeen di jaamu ñoo ko yéen ñoo bokk lu ngeen di attewoo wa ulil amri minkum topp leen yàlla topp yonent bi topp kilifa yi diine yi yor diine ci su ngeen demee ba xëccoo delloo leen mbir mi ci yàlla ak yonentam mooy alquran ak sunna kon ci nga xam day dund di dund di dund ci suufu laïcité xam nga ne moom kon genn wàllu diineem lay dund mooy pas-pasam ak jaamam waaye genn wàll gi ci def di ay atti yoo xam ne borom bi moo ko atte te dëgëral ko noonu in alxukmu illa lillah atte yàlla rek ko yor ala lahu alxalq wal amr jullit boobu day wet bii nga xam mooy wetu atte gi wetu bind sharia di bind luwaa yi kooku moom amu ko kon imposé nañ ko mu dund genn wàllu diine laïcité kon dafa neenal sharia bàyyi ñu ab jullit bu attewoo ci li yàlla wàcc waaye ñu mu ci laïcité jàppul njaaburam ndax dafa wañu ku nekk mu sharia koo xam ne dafa ñuy tëralal sharia dafa ñuy tëralal sharia ay yoon yu ñuy jaar di ci dund di ci attewu ci biir sharia am yooyu da nga ci fekk muy daganal lu xaraam lu bari daganal jote góor ak jigéen te takkante wul daganal sàngara daganal sobe mbaam xuux daganal daganal nga fekk muy daganal yu bari yu suñ borom xaraamal ci sharia nga fekk muy xaraamal yu bari yoo xam ne suñ borom da koo daganal ci sharia kon jàpp njaamorom loolu wax maandu ci diine ku ne mu balaat sa diine loola defu ko ndax xàllal nañu yoon yoo xam mooy yoonu sharia kon yému ci yoonam yooyu nga xam ne moom la xàll ak loi da ngay seet lu baax ne am na ci lu bari loo xam ne day niiwal doole pas-pas yooyu mu daganal nga xam ne ubbi na ko ku mu neex dem ca ku ko ne ku mu neex nga def ko ku mu neex nga wax ko ku mu neex nga gëm ko da caa bari loo xam ne day xeex pas-pasu jullit di woyofal pas-pas da ciy bari loo xam ne moom ci boppam lay dilsiwaat di ko suuxat di ko dooleel ndax façon njàngaleem nga xam ne njàng la moo xam ne enseignement laïque la njàng moo xam ne diine doonu ci dara wala xalaat yoo xam ne diine doonu ci dara wala politique boo xam ne diine doonu ci dara culture aar boo xam duñ dee ci dara li ñuy indi loolu kat li mu indi xam nga ne moom day tax moom ak nekkam gën a dëgër suñu sofeem gën a sax ci biir askan wi am njàngaleem gën a sax ci askan wi pas-pasam gën a sax ci askan wi ay valeuram gën a sax ci askan wi parce que loolu lay jàngale su ubbee ab rajo nga fekk ko ca su bindee ab journal nga fekk ko ci su ubbee télévision nga fekk ko ca ministère boo dem boo demee ci justice bi fekk ko fa soo demee ci tàggat yaram yi fekk ko fa fenn fu nekk dana fa tëral ay loi yoo xam ne kemt lay li ñuy néewale pas-pasu jullit di dox digganteem ak dund sharia moom it noonu la koy dooleele moom dooleel philosophie am dooleel ay xalaatam dooleel ay valeuram ci biir askan bi kon kii nga xam ne kii moom diinam jël wàll gi lay dund kii nga xam ne moo ko yilif bu mu xole nii bu yàgg amee mbaa du wujj kii di gën di néew doole di gën di néew doole ba mujj mërmeelu daanu ci di yokk doole di yokk doole ba mujj yegg moom rek moo fay nekk kon jullit bu dund ci suuf laïcité ah am na jafe-jafe te fii ci Sénégal nag Sénégal lu bari ay contradiction la ci wàll yii ndax Sénégal réew la ba moo xam ne dañuy wax ne téeméer ba wañu bu nekk juróom ñeen fukk yi ak juróom ay jullit lañu juróom yi ci def ñooy beneen loolu bi sax ma laaj la waa ana juróom yooyu ndax man damay faral di laaj fa la njortee juróom yooyu war nañu faa nekk ci goxe penk yi surtout koo ne ko waaye seen dëkk mun def ak pas-pas daan ah lan lay wax dara du ci leer nga xam tey mel na lu gisu ko nga xam ne foofa kon cinq pour cent yi mënu faa génne koo laaj ci gox goxaat yi rek surtout rëtt penku yi la ma lay wax day wax ne foofa lislaam a fa nekk mu des nag lislaam boo xam ne ña ko yor xam nañu am nañu xam-xam wala amuñu xam-xam waaye cinq pour cent bi moom mat naa gis ko ba xam fu mu ne moo tax ñu wax ne quatre-vingt-dix-huit pour cent sax defe naa ne juumuñu waaye ala kulli xaal Sénégal bureew moo xam ne lislaam noonu la fi toll nga xam ne Égypte sax àggul foofu àggul quatre-vingt-quinze pour cent boobu suñu sax àggu fa lu dul sax àggu fa te ñuy réew yi islam yi nga xam saxaaba yi bëri bëri di tasaare tasaare lislaam foofa lañ jëkk woon Sénégal àgg foofu ñun ci biir ay jullit muy benn ñaareel bi mooy nguur bi fi nekk di nguuru layib mooy nguur bi ñu mën a jaxasoo ak kilifa diine yi gën a duggante ak ñoom gën a dugg ci activité diine yi nga xam ne askan bi moom lay woote di ko organiser nguur gi fi nekk nguur yu gën a jaxasoo kilifa diine ci masla ak ci jàmm nguur yu gën a impliqué wu ci ay activité diine mooy nguurug Sénégal wante soo demee ci constitution bi boo ko ubbee xët wu njëkk la ngay jëkk a gis mooy Sénégal ñu ngi adhéré wu ci mboolem convention mooy mboolem ay ay ay ay xaatim yoo xam ne Nations Unies ak mbootaay yu mag yooyu xaatim nañ ko Sénégal adhéré na ci xaatim yooyu def ko benn ci masadiru tashwi am bi maana waa yi muy tër ne sukkandiku day day day sukkandiku ci convention yooyu ak signature yooyu ak xaatim yooyu ak ci déclaration universelle des droits de l'homme ba tey bokk na ci ay cëslaam yoo xam ci lay sukkandiku ngir tëral ay loi te xaatim yi nga xam ne it organisation régionale yi ñu koy génne mel na ay ay CEDEAO ak ay bu ci des yooyu li ñuy génne ci ay xaatim Sénégal wax na ne moom ci la adhéré def ko muy sukkandiku waayam ci wàllu tër ay loi nga yër loolu ba mu jeex ay sukkandiku waayam mu di ko wax ba mu jeex doo ci fekk shariatul islam yi nga xam ne ah téeméer boo woon ñi juróom-ñeent fukk yi ak juróom moom ñu gën Sénégal bokk ci pays yi gën a mën a jàng alquran gën ci mën a def sacrifice gën a mën a jàng sharia fiqhu maliki yi gën cee mën a def ay sacrifice laxas dugg ci ruq bu nekk ngir jàng fiqhul maliki yi fiqhul maliki yi mooy mawad nizam xukm islami yi mooy matière bi nga xam ne gouvernance islamique moom la di jëfandikoo kon ñu gën koo jàng ci réew mi te mu gën a doon jaambur ci suñu constitution ba ñuy lim sax delluwaay ya kenn boolewu ko ci pourtant lu bari ci fiqul maliki day réglé na problème te amaana sax dëppoo na ak gis-gis yi nga xam ne moom la gouvernement lay gis lu ay contradiction yu yu yu yu day waar la Sénégal soo demee ci constitution bi premier article article bi nga fekk mu ne Sénégal république la laïque la ci ci bind wu jëkk bi ci bind wu jëkk bi article premier Sénégal république la laïque la démocratique la sociale la lii ne ci constitution bi ak li ne ci réalité dëkk bi ci wàllu xam-xam ak wàllu kilifa yi diine ak ci wàllu limu l'islam ak jaxasoo bii kilifa yi ruur gi jaxasoo ak l'islam dëkk ñi ko yor loolu day boo ko dee seet ba ci biir doo xam lu mu day mel ci atum deux mille wala sax mu ñëwaat ci loolu soo demee ci li wax code de la famille bi code de la famille mille neuf cent soixante-douze lu njëkk a génn booba jamono su ci kilifa diine yi am nañ ci taxawaay taxawaay weet di ko ak bañ Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ko ci siiwoon la dajale woon na signature kilifa yu bari ci waa kër Serigne Touba gi ak yeneen kilifa diine ñoom ñëpp ñu ànd signé ba bañ code de la famille bi waaye teewul mu jàll ba fi tey jii tey dana ci fekk ci code de la famille bi fukki masala fukki buntu yoo xam ne benn bu ci nekk dafa juuyoog sharia juuyoo bu wér a wér a wér ci gàttal lu jëm ci wàllu as aw askan appartenance nit ki aw askanam ñi ci code de la famille ak addoo ni wuute la ak sharia wàllu mariage mooy sëy wàllu fase wàllu miraas wàllu li ñuy wax autorité parentale te mooy kan mooy yor gone kan moo war a yor gone wàllu nàmpal wàllu kilifteef góor ak jigéen wàllu ndénkaane testament wàllu maye wàllu xaraf wàllu adopté doomu adopté ko wàllu liberté de conscience mooy gën lu la neex ak yooyu lenn lu ci nekk boo ko toppee ci code de la famille fa mu jaar ak fa sharia jaar da nga yéemu da ngay wax ne xanaa lii meneen réew ñu ko defare meneen réew lañ ko defare waaye defaruñ ko Sénégal gi nga xam ne nii la fonk fonk sharia nii la fonk fiqhul maliki min al aqdari ba ngay dem risala ak tuhfatul hukam ci atum 2000 président Abdoulaye Wade ci benn conférence islamique bi fi amoon jëmoon ci wàllu jàmbaar yi fi nekkoon doon fippi di jàmmaar la tubaab bi ci ñaari siècle dix-neuvième siècle ak vingtième siècle conférence boobu Abdoulaye bi ñu koy ubbi ci discours ba waxoon na ne dama bëgg a dindi baatub laïcité ci constitution bi baat bi nga xam Sénégal yi xamuñu lu muy wundu xamuñu sax fu mu jógee ñu la ko waxee dama pour dugal ci constitution baatub Allah Dieu nga xam ne président buy waata ci day waat devant Dieu maa ngi waat ci kanamu yàlla maa ngi waat ci kanamu nit ñi lay wax wala day doxoon dinaa génne ci constitution baatu laïcité dugal ci baatu yàlla Dieu boobu constitution boobu lay préparé pour ñu def ci li ñuy wax référendum voté ko waaye ba mu waxee ne naa ci génne baatu laïcité coow jib lu rëy coow la kat dafa mel sax fa mu gën a xumbe ci biir doole soxna yi la gën a xumbe mu jàgg mu bàyyi ko ne dama bëggoon dindi laïcité bàyyi fi maanaa mi baat bi daa bëgg a génn bàyyi fi maanaa parce que baat bi tekkiwul dara maanaa mi nag mooy kenn du bindu xatal kenn ci lim gëm ba noppi ñëpp it ñoo yem ci loi kanamu loi ba noppi ñëpp am jàmm di déggoo di dund ci dal mooy lii mooy maanaa mi moom daa ci bëggoon bàyyi te génn fi baat bi gannaaw nee na gannaaw nag gaa ñi bañ nañu léegi kon dinaa ko bàyyi te dugal fi rek baatu kon yàlla ba kuy waatati waat ci suñu borom waat ci nit ñi loolu Abdoulaye Wade waxoon na ko ci laïcité bi baatub yàlla boobu nag nekkoon na fi depuis mille neuf cent soixante ci première constitution ba ci mille neuf cent quatre-vingt-trois Abdou Diouf moo ko fi jële woon moo ko ci moo ko ci génne ci constitution bi wante su ma avancé wax jullit bi bindu kon ci suufu nguuru laïcité boobu na nekk ku bari ku wattandiku na ndax kat na xam ni dafa war a sàmm lii nga xam ne moom la kóllëranteg suñu borom muy amaana ndéykaanal suñu borom da ko war a sàmm te borom bi nee woon na falyaxzar alladina yuxaalifuuna an amri an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim ñi nga xam ne dañu wuuteeg ndigalu yàlla di juuyoo ak ndigalu yonent bi ni wattu seen bopp balaa leen fitnaa dal kon jul bi na wacc na bàyyi xel loolu waaye lislaam yonent bi waxoon na ne ci tumuranke la tàmbale woon dina demaat ci tumuranke bay ba mu xame ko noonu islam sam waxoon na ci xadis wax ne fa innahu man ya'ish minkum fa sa yara ixtilaafan kasiran عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ لأن بدون بدي فن بؤدد يجي دجن جس موتة ببري خم nga wuute ba ci sa biir digg kër nga wuute fa li nga gëm ak li ñu lay yindi fi bokk kooku wuute fa la yem te kat amaana yow bi ko gëm ak moom ni koy àtt yéen a bokk lu ngeen gëm di tax ci jàkka ci tase ci kaaba gi waaye ci ñun mbir bi doxee nii waaye mu waxoon addu alayha bin nawajis ku ci yor lislaam nan ko yóbbu yóbbu ci roog seen nan ko yóbbu ci sa digg bi mujj ba ci digg bi mujj ba nga matt ko nga teg ko fa te matt ko balaa mën a rëcc ku nekk xam ne ku matt ci digg moom da nga mën a sàmm la nga matt kooku mooy diine ji kon kuy dund ci suufu laïcité na nga bàyyi xel sa diine sàmm ko lépp loo man Seydina Omar bin Seydina Ibnu Abbas dañ ko laaj ne ko Omar nu mu meloon nu nu jikko woon mu ne kaana ka tayr alxazir kaana ka tayr alxazir yara anna lahu fi kulli tariqin sharakan yaqa'u fihi kenn Omar dafa nekkoon ku bari ku wattandiku ba mel ne fu mu teg tànk fu mu teg tànkam bu ne ak fiir ma nga fa goo xam ne sootul dina rax ci kaw mun loon dund bi min kon jullit fokk kon jullit bii ñuy wax fokk mu am doon ku sàmm doon ku bari ku wattandiku doon ku teey ci yëpp yi ñuy wax dagan na yëpp doon ku teey ci li ñuy wax xaraam na yëpp na bàyyi xel ne wattandiku li yent bi doon wax naan l'islam day latuntaqidanna ura alislaami urwatan urwa fa kullu man taqadat urwa tashabbasa annaasu billati yali taliha wa awaluhunna naqdan alxukm wa axiruhunna alsala rasulullah nee woon na l'islam ci boppam day daañ ko finc di ko finc di ko firi mel na mbalaan mii wala sijaada gi nga di ko firi di génne për wëñ di génne për wëñ ne nga lislaam daañ ko firi wëñ për wëñ buum për buum bu bu ñu firi dañ daan du ca dal de ni ko nekk waaye daañu ko firi gaa yi firi daañu ko firi ba mu dem ñu jàpp ci buum ga ca sës ne bii moom kenn du ko firi waaye bu ñu dikkee ñoom it jàpp ca di firi ndànk di firi ndànk moom firee ko jullit jàpp ci buum ga ca des noonu la ñuy def nee na li ñuy jëkk firi nag ci buumu lislaam yi mooy atte bi li ñuy mujj firi mooy julli gi ndax julli gi moom amuñ ci benn intérêt amuñ ci benn ngaañ moo tax kon julli dina wattandiku lislaamam di firiku par wuñ par wuñ par buum par buum julli bi da wattandiku tàmb tàbbi ci li ñuy wax nawaqidul islaam nawaqidul wudu mooy yuy firi njàpp am na fukk yoo xam ne boroom xam-xam yi ñu ngi ko tudde nawaqidul islaam yiy firi lislaam nga xam ne boo ci tàbbee te yaa ko tey su boobaa am toj ni muy yàqi sam njàpp firi ko noonu it la sa lislaam di firi ko kon jullit buy dund ci suufu àtteb laïcité na bàyyi xel bañ a tàbbi ci benn ci yooyu ñuy wax ne mooy mawaqidul islam di firi lislaam te bokk na ci day ku gëm ne njub gi nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam moom la fi indi ku gëm ne am na geneen njub goo xam ne moo ko gën a mat nee na ku gëm loolu su boobaa yow sa lislaam firiku na ku gëm ne njub gi fi yàlla indi rasulullahi indi ko fi ku gëm ne am na njub lu gën a mat boobu njub yow da nga xam ne yow ah sa lislaam kon na ngay firiku yaa ngi dugg ci luy toj sa lislaam fala wa rabbika la yuminuun xatta yuxakkimuka fi ma shajara baynahum bokk na ci it liy toj lislaam koo xam ne ki ne li rasulullahi indi dañ koo bañ doonte yaa ngi koy def waaye dañ koo bañ rasulullahi lu mu indi lu ne lu mu digle lu ne lu mu jàngale lu ne lu mu yoonal lu ne koo xam ne danga koo bañ doonte yaa ngi koy def na nga xam ne sa lislaam na ngay firiku sa lislaam dana toj dalika bi annahum karihu ma anzala allah bi des bokk bi ci ñuy firi lislaam koo xam ne ki ne day saboote day tuutal di reetaan lenn lu ci diine yéen sallallahu alayhi wa sallam ak sunnaam ba ca sax tuyaaba jiw di aji jëf wala mbugal mu ñu jëf mu ñu dikk aji ñàkk jëf koo xam ne kii tuutal nga ko di ko sewal ak a reetaan na nga xam ne yaa nga ca lay firi sa lislaam qul abillahi wa rasulihi kuntum tastahzi'un yooyu bokk na ci yi ñuy tudd yiy firi lislaam te muy fukk kon jullit bi war naa bàyyi xel ne na sàmm diineem bu baax kullukum raa'in wa kullukum mas'uulu an ra'iyati ku nekk ci ab sàmm la waaye sàmm bi gën a rëy ci looy sàmm la ci gën a rëy mooy sa diine muy benn ñaar bi mooy na muñ na muñ na muñ ci natt na muñ ci fitna ndax kafa mel ne natt bi dafa bokkoon ci xikma bi tax yàlla bind jàll bi li yebluwakum ayukum axsanu amala xalaqa almawta walxayaata li yabluwakum ayukum axsanu amala yàlla ne maa bind dund bind dee maa bind dee sax la wax bind ndax nattu leen ana kan moo ci gën a mën a muñ ba génn ci lu pression bi metti metti lu la wër wër wër ndomba lu jéem a toj sa njàpp sa sa sa lislaam lu jéem a jéem a firi sa diine na nga way deng ñëpp ko yóbbu ko ca gëgëj ba téye ko ca te nga nuyu ndax nuyu nuyu du am njàngale rek boo xam sax dañ koy jàngale di am waaraate waaye muñ ci boppam principe la boo xam ne dañ ciy dund inna allaha maa sabirin yàlla nee na maa ay muñ ñu ñoo ànd yonent bi daan wax asbiru ala yaasir fa inna mawidakum aljanna yéen waa yaasir ngeen gëm waa Quraysin di leen teg ay coono di leen mbugal min leen rendez-vous bi mooy aljanna gaa yi nga xam ne ñoo gàddaay yoon bàyyi ko makka dem xabasha doon làqi seen diine di ko rawale ci nuyu rek lañ lañ toogoon nuyu principe bi nuyu kon nag ñu it fi nekk ci suufu nguur gu almaniya na fannoo nuyu te bi ci des mooy na xam ne jullit dafa war a jël responsabilité ci diggante ñaar diggante saa su nekk mi ngi ci diggante xayrun yadu wa shaytaanun yuxwi jullit saa su nekk mi ngi nekk ci diggante yii woo xam ne da koy woo ngir mu def ko amu yiw am tuyaaba waaye diggante seytaane soo xam ne da koy xiirtal su def aw ñawtif kon sa milieu bi nga nekk lu e bunti bunti mooy yàlla yi bunti sobe yi bunti naflaayi bakkan yi bunti daganal yu xaraam yi bunti xaraama yu dagan yi li ko ubbi ubbi ubbi na nga jël sa responsabilité te denc sa diine te sàmm ko te dëkke wattandiku te muñ ba ci des mooy li nga xam ne laïcité bi may na la ko ci sa diine jël ko lépp ba mu jeex lim la may ci lay ci ci ci sa ci sa ci sa diine jël ko ba mu jeex sañuy pas-pas dugg ci jaxase ko wala bokk du du direct donte am na indirect te da nga takk soxna takki ko ci yoonu yàlla da nga ko fase ci yoonu yàlla mu jàpp it ba ci yoonu yàlla ñu maye ko ci yoonu yàlla nit dana faatu ñu miraas ko ci yoonu yàlla da nga dénkaane ci yoonu yàlla ak yi ci des kon li la mbay cité bi may ci sa diine jël ko ba mu jeex nag it bu ko fa bàyyi ba noppi di joytu wala boo ko doo ko doo ci am soxla ba noppi di laaj loo xam ne ñëwagut kon it na nga ñëw bala nga xam ne moom sa diine lay cité ba may na la ko nga jël ko nag ba mu jeex yittewoo jàng diine bu baax jàng alquran bu baax jàng sunna bu baax jàng sharia bu baax waaw xam-xam yi nga xam ne tabax ngir nga am force ci wàllu bitti zahir xam-xami addina yi am nga am nga ci am nga ci occasion jàng ko bu baax nga tabax sa bopp ci diine tabax bu dëgër bu tegu ci xam-xam tabax sa bopp it ci wàllu man-man ak xarale ak xam-xam waaye bul yaafus nag di bayli ko ci wet yooyu yëpp ba noppi di di waxtu ne ngay jàpp ba sëg nañ doole bokk na ci ba tey ñeenteel bi mooy ngay laabiire ñi nga xam ne ñoo la yilif te yilif ba ci ab laïcité laabiire mooy saa bul wax dëgg jotee nga wax ko fa qula lahu qawlan layyina bul ñagasal bul dagg bul saaga te bul xas bi waaye waxal li nga war a wax waxal li yàlla wax waxal li yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax waxal li sharia wax saa bu ñu ko waree dégg rek nañ ko dégg ndax loolu bi ñëwaat ci ponkub al amru bil maaruf wa nahyu anil munkar te muy principe bu am solo ci pas-pas bi dikk li lu baax di ay lu bon wax ko ci rajo bi wax ko ci télévision bi wax ko ci journée bi wax ko ci conférence bi wax ko ci biir xutba bi amaana bu wax yàggee mën naa soppi dara ci am xel mën naa soppi dara ci xol mën naa soppi dara ci ay jëf kon kooku bu ñu ko bàyyi nañ koy def soppi googu nag da ko yont bi jàngalee ay degré la soppi ci saw làmmiñ soo ko munut soo ko mënee nga soppi soo ko mënee nga soppi ci sa loxo soo munul loxo nga soppi sa làmmiñ soo munul làmmiñ nga soppi ci sa xol soppi ci saw làmmiñ mooy di ko reeteet li dox te wër ta dox li la tee dund dund l'islam ju mat sëkk li tax ngay dund comme jarag te l'islam doonu jarag buy noyee benn poumon ngay dund genn wàllu l'islam dee ko reetee dee ko wax dee ko wax dee ko wax soo ko mënoon soppi ci sa loxo nga soppi ko sa loxo soppi na loxo bi am nay façon bu ñu nee dañuy voté dañuy voté diw dañuy voté dañuy fal maire yi maire yi ñooy représentant gouvernement bi ci localité yi dañuy fal maire yi nga tàmbalee ko foofu seet maire boo xam ne xam nga ni kii boo ko falee doole dimbale ci sa diine dimbale sa mbokk yi ngay nattale kooka comme déglu ay jëfam ak i waxam ak i programme kooku ci soppi ci loxo la bopp dañoo ba ca kees da nga soppi ko foofu kese bopp bu ñu nee législative bi mooy député yi ba tey mooy mu gën a kawee ci institution bi gën a kawe moom it dañuy fal député xoolal ban député ngay fal ak bu dul fal boo xam ne soo ko falee su demee assemblée nationale dina wax ci say tur wax ci sa pas-pas wax li koy tax a ñoŋ wax li koy yokk di wax ci li koy xeebu li koy tax a xeebu bu dee ba tey voté nga nga voté foofu ba tey kooku soppi na ci sa loxo waaw buñ demee ba ca présidence ga présidentielle ba ba tey noonu nga seet ka nga xam ne programme doy na la ne kii day dana la dimbali ci sa diine ba nga jur juddu diine ju mat sëkk wala boog yu jegee mat yu jegee mat mat boog te it di la yàqal sa addina nga seet kooku nga soppi moom it foofa ca kees ga voté ko voté ko mel noonu jullit dafay xippi yow soo demee ba mënuloo am ku dul président boo xam ne toujours laïc lay doon parce que mën na nekk président boo xam ne ak lu mën a wax ci diine ak lu rafet nag ci mujj gi moom président almani lay doon laïc waaw su boobaa it xoolal dëkk yu mel noonu nga fexe ba am xukuma aadila état boo xam ne bu maandu la bu maandu la ni muy doxeek li diine ci ni muy doxeek koppar yi ni muy doxeek nit ñi ndax adlu ci boppam meloon suñ boroom la al adlu maandu te boroom xam-xam wax nañ ne inna allaha yansuru الدولة الك... دولة العادلة وإن كانت كافرة ولا ينصر الدولة المسلمة الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة إن الله لا ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة ñu wax ne yàlla suñu borom dina dimbale nguur goo xam ne ak maandu lay doxal bu àttee àttee maandu bu séddalee séddale maandu bu tëree luwaa tëri ko ci maandu bu appliqué appliqué maandu na nguur googu doonte nguur kéefër la suñ borom dina ko jàppale ndax aw turam la yor di ko sàmm wala yajrimannakum shana'aanu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa kon gannaaw suñ borom dina fekk nguuru kéefër buy doxal maandu mu jàppale ko dina fekk nguuru jullit boo xam ne day wax ne jullit la di tudd woo lislaam ba noppi tooñ mu bàyyi ko di ko dimbali kon su boobaa su fekkee ne amoo mënoo am kudul nguur goo xam ne almani rek lay doon fexeel boog ba am nguur goo xam ne boog day màndu déglul gaa ñi seeni programme jàngat seeni parcours déglu leen te am fulla ju tol kane koo fal ngir yaakaar ne daa la liggéeyal bu la liggéeyul nga folli ko am fullay folli ko taxyiru bil yadi soppi ci sab loxo da nga ciy fal di ci foll te it muy lu am solo nag surtout ci nguur boo xam day woote woo démocratie naka noonu ba ko juróomeel nga wattandiku li ñuy wax violence ngir soppi wattandiku fitna ndax yoon soo fa ne woon na isma'u wa ati'u وإذ استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة رواه البخاري nga wattandiku dem ci violence ngir soppi dem ci violence pour bëgg a changer laïcité bi kooku ne boroom xam-xam yu jëkk yi ak yu mujj yi wax nañ ci lu bari wax nañ ne daganul nit di génn fab ngànnaay ci kaw buur daganul citoyen bi ki dëkk ci dëkk bi génn fab ngànnaay ci kaw buur lu dul ci ñaari sart mu teg ko ci ñaari sart benn bi mooy ak kiifur gu leer goo xam ne ay preuve yu leer la àndal ñu di ko doxal doxal ak kiifur gu leer di ci dox di ci doxloo nit ñi kéefër gu leer gu ànd ak preuve yu leer muy benn short bi desit mooy nga xam ne mën ngaa soppi te doo indi musiba mu gën a rëy li nga doon soppi mën ngaa soppi te di ko tege musiba mu gën a rëy di ngay soppi ndax am na qaida charia boo xam day wax ne laa yajuuzu izalatu charri bima huwa acharru minhu bal yajuzu daru charri bima yuziluhu wa yuxafifuhu daganul nga fekk musiba nga di ko dindee musiba mu gën a rëy loola nga fekk musiba loola musiba la nga di ko saafaraa musiba mu gën a rëy déedéet bal musiba kay nan ko soppee lu koy dindi wala boog lu koy woyofal te loo xam ne day indi fitna duutu yem ci bopp boroom ki tooñ gaañu ci ki ki ñu tooñ gaañu ci bakkan bu set wecc defu dara faatu ci bakkan bu def dara faatu ci ku ci yéneen ni ko yàqule ca yooyu fitna nga xam ne te doo xam fu mu yem kooku it lislaam santaanewu ko lislaam santaanewu ko fattaqullaha mastataatum li nga am ci diine fexeel muy yokk waaye nga téye ko bu mu wàññi ko mukk ba ci suyuxul malikiya yi jële dañ ci ñoom ku mel ne ibn abi zayd alxayrawani ku mel ne ibn battal ci sharxu buxaariyam ku mel ne ibnu abdulbarri am di ñoom ñoom ñëpp nett lañ ne wax nañu ne ijma am na ci boroom xam-xam yi ne jëm ni ci nguur boo xam ne zalim la faasiq la aram na wax nañ ne ijma mooy boroom xam-xam daje nañ ne génn jàmmaaloog nguur ngir ne zalim la faasiq la kooku ni aram na ndax lan ndax wattandiku lu gën a rëy ndax ka nga xam ne nga zalim la faasiq la pare na ci yow pare ci say bokk ak ñi nga bokkal pas-pas loo xam ne amaana yow sax sa diine ak sa jikko du la ko may ci moom bi maanaam mën naa àgg ci yow ci fitna foo xam ne amaana yow soo ko jékk woon sax doo fa àgg kon loolu boroom xam-xam yi ba tey wattandiko loon nañ ko dund ñi nga xam ne ñu ngi dund ci suufu ay kiliftif yoo xam ne bokkuñuy pas-pas wala boog ay laïcité la yu teey laïcité nag xam ngeen ne ay xeet la ay xeet la ay façon la parce que laïcité France bokkut ak laïcité Amérique président Amérique mën nay waat di waat ci bible bi di waat ci bible téeréb nasaraan yi nga fekk ab attekat ci benn région ci Amérique benn état mu nekk jullit moom attekat bi buy waat day teg loxoom ci kaamil bi di waat kaamilu alxuraan kooku seen laïcité ay laïc lañu mais laïcité wute na laïcité France mooy laïcité bi gën a teng ñu ngi ko def suñu constitution ci mille neuf cent quarante six laïcité boobu bi nga xam ne day maandu ci diine bokkut ak boobu boobu moom jox na boppam pouvoir intervenir ci diine ci ba tax nga gis ñuy am yu ñuy tere sol fulaar yenn écoles yi julli ci yenn barab yi lu bari ci lislaam état bi da ci dugg da ci intervenir te nee na laïc la parce que seen laïcité fi gën a teew ba tax France fi mu ne mooy professeur laïcité ci monde bi ñoo ko gën a teengle ba noppi ñu ko gën a gëm laïcité britannique ba tey bokk diine gën na faa noyyi laïcité indien yi beneen la kon laïcité bari bokkul xam naa ci xeet yooyu suñu bosit suñu bos ndax Abdou Diouf waxoon na ko ci 1884 yenn laïcité bi wóor ko xeex diine dafa war nag laïcité boo xam ne day ubbeeku nit ñi mën a dund ci jàmm tudde ko almaniya muhaayida laïcité boo xam ne day maandu du aliñu ci kenn comme ñu nekk violence bu baax bi ci des takfiir takfiir ndax violence ak takfiir takfiir mooy wax ne ay kéefër lañu te boo nee kéefër lañu ah acte kéefër leer na ci sharia kéefër moom dañ koy xeex nga wut ixdal xusna yooyu benn nga xeex ba faatu dugg aljanna wala nga xeex bagaañ ko bare ko comme wattandiku di kéefërloo kenn ci boroom xam-xam yi Cheikh Mouhamed Hassan Addadaw boroom xam-xam bu réy boobu dëkk Mauritanie ñëpp xam ko dafay firi aaya wa man lam yaxkum bi ma anzala allah fa ulaika hum alkafirun aaya bi di wax ne ku attewul ku attewul ci li yàlla wàcc ya maanaam ku atte ku attewul ci li yàlla wàcce yow ab yéefar nga ñooñu ay yéefar lañu da dee di wax ne wa man lam yaxkum bi ma anzala fa ulaa'ika humul kaafiruun ku attewul li yàlla wàcc yëfër ba mu ne ñetti xaaj lañu nit ñi ñetti xaaj lañu ki nga xam ne attewul li yàlla wàcc attewul leneen ndax néetum atte koo kenn ko kon waman lam yaxkum ku attewul bima anzala ci li yàlla wàcce mooy kaafir la su fekkee nee na dañ koo ubbi am mutlaq dañ koo ubbi su boobaa dina dugal ki nga xam ne sax yow moom attewul li yàlla wàcce attewul leen parce que amul attewul dara maanaam di kon ki attewul dara sax day dugg ci biir ndax moom attewul li yàlla wàcce kooku mooy kenn ki yenn at ki nga xam ne day attewoo li yàlla wàcce ña ñaar ñooñu ku ci nekk génn na bukk ci ayat ki gis kan la mooy kiy attee di attewoo li yàlla te attewul li yàlla wàcc kooku dana kooku ñetti xaaj lañu waaye ñu ne kenn ki mooy koo xam ne ki attewul di attewoo leneen lu bukk li yàlla wàcc da dañ nee na ñetti xaaj lañu kenn ki mooy koo xam day taxriif tabdiil day fab àtte yàlla wacc ko fee soppi ko ba noppi di wax ne huwa min indillah wa ma huwa min indillah dañuy atti atti nit ñi ay atte yoo xam dañu naan lii mooy àtte yàlla te fekk ñoom ñoo soppi la yàlla waxoon soppi lim tëraloon defe ko ñeneen ba wax ne lii huwa min indillah lii mi ngi bàyyi ko fa yàlla borom bi ne mukk bàyyi ko fa yàlla kooku moom nee na sikk amut sikk di kéefar la ndax taxrif bi mu def soppi gi mu def ba noppi tudd ko yàlla tudd ci suñ borom kéefar la nee na ki gis mooy koo xam ne day attewoo li yàlla di attewoo leneen di bukkutub li yàlla wàcc waaye nag niiwul ne yàllaa ko wax de waxul ne alquran lay attewoo niiwul ne sunna lay attewoo niiwut ne sharia lay attewoo dafa ne man li may attewoo mooy loo xam ne ay boroomi xel ñoo ko tëral farlu ca góorgóorlu ko natt ko segg ko ba wax ne baax na kooku keneen la mu ngi attewoo loo xam ne bukkut ak yàlla wàcc waaye néewut moom yàlla ko wàcc nee na néewul alquran wala sunna wala sharia la kooku la wax ne nit ñi am nañ ci moom ñetti taxawaay am na ñoo xam ne moom dañu ko kéefër la kéefër la waaye dañu wax ne wattandiku ngay doyal ab atte di wax ne diw kéefër la ngir lu mel nii ndax am na qaa'ida qaa'idatu ahli sunna boo xam day wax ne anna kulla mas'alatin uxtulifa fiha hal yukaffaru biha am la fala yutabaqu ala saahibiha حكم حكم التكفير إن أي مسألة اختلف فيها هل يكفر بها أم لا فلا يطبق على صاحبها حكم التكفير bépp masala boo xam ne boroom xam-xam yi dañ cee wuute ndax ki ko def kiifar la am du kiifar gannaaw wuute am na ca rek buñ appliqué ca boroom atteb ku yéefar dama atteb rey gannaaw wuute am na ca rek bu ñu àtte boroom àtte kéefër ñu ne ko qaidatu ahlu sunna la te it lu ubbi bunta tolérance la te lislaam it la tolérant la te rasulullahi nee woon na idra'u alxududa bi shubuhat te nee na takfir xaddun min xududillah mais takfir dafa bokk daan yi nga xam ne suñu boroom moo ko samp ku ko def ñu war laa daal mu leer ci alquran mu leer ci sunna kon gannaaw nga xam ne xadd mi xududullaahi la yonent bi ne idraul xududa bi shubhat képp ku ngeen war a daan li ngeen ko war a daane fekkee am na lënt moom la am du moom su boobaa na ngeen sukkandiku ci lënt ga bàyyi ko mu jàll ndax di ijtihaad ba bàyyi koo xam ne yeyoo nañu yar ko moo gën di ijtihaad ba caw koo xam ne defut dara di góorgóorlu di doxal yoon ba fekk ko def dara nga ba ko nee na muy gën ngay góorgóor doxal yoon ba fekk koo xam deful dara nga daan ko kon idra al xududa bi shubuhat képp koo xam ne islam daf laa war a dal ci sa kaw sharia daf laa war a daan bu amee benn shubha lawsa bu ci nekk nañ sukkandiku ci lënt ba te taaxeer lu bàyyiwaat mu waxaat feneen na idra'u al xuduuda ma stataatu daan yi na leen ko puus jëng duñ ko lépp lu ngeen mën kon nañu fexe ba wattandiku di xuruj di jëmm ak violence ngir changer loo xam ne changement bi jotagul ñaari charte yi dajewu ci mooy kéefar bu leer nañ ne bu arbitraire bi ci des mooy nga xam ne boo ko changé lu si ba bu gën a réglé la fekk bi ci des mooy ne weet wattandiku it di takfiir di kéefarloo jaam boo xam ne daañu tase ci jàkk ji tase ci alquran ji tase ci kaaba gi wattandiku ki am fulla rek di doxal li nga xam ne yoon may nañu ko insha allahu bu ñu amee fulla te way daañu am luñ bëgg ñu wattali ko doon bii citoyen ki xam day jàmbat jàmbat lu mel nii ak yeneen yi di ko jàmbat ci nguuram ba taxyir jot taxyir bil yëdd te mooy changer ci sa loxo te mooy dem ci kees ga rek woteel ka nga xam ne moom lañu war a woteel di jàmbat di jàmbat ba bis ba dikk waaj a jaar fa am lum la bokk lu sew lu doye di léeg-léeg sax la jox dara daf la koy dikk nga sukkandiku ci lam la nga sukkandiku ci lam la bokk wala lam lay dikk tax nga fab sa carte yi nga war a soppee dem defal ko ko fa bu ëllëgee bu nekkaat fa di fa jóg nga dëkkee jàmbat yow loolu nag bari na fi mooy jullit nag day yeewu jullit day yeewu nag danaa yow constitution bi may na la lii nga man cee jaar organiser wu soppi ah ab politicien ab waxkat bu mu fa jaar ba nax la bokk la lëf wala mu digle ko nga fa saw carte dugal ko foo xam ne sa fitna ji nga nekki day yokk fitnay diine fitnay addina kon soppil ci sa làmmiñ di ko rafet soppil ci sa loxo ci carte bi soppil ci sa xol mooy soppi sa xol dellu ci danaa bañ laa daal bëggoon ngaa soppi ñu daal demaatal ci front ba demaatal ca ca ñuy opposé opposition bi nga xam jàpp nga dañ ñu ñoom kii de moom wóolu nga ko demaatal ci moom ngi organisé waat yóbbu sa xol di ko mettit lu te bañ ko fàtte te fas yéene su jotee nga songaat bëre rek kon bokk yi loolu mooy tomb yi nga xam ni moom laa andi woon ci tomb mawdu bi Sëriñ Tuubaa la ko waxoon lakin mudaaraatuhumu qad wajabat bima fi nas fi xadiisin qad sabat walam yaliq illa li caalimin kamil yakunu za cadalatin wala yamil falcaalimu aljaa'iru lam yaliq bihi wa misluhu aljaahil Sëriñ Tuubaa nee na su ngeen nekkee ci suufu kilifteef boo xam ne jubluñu wattu leen jaxasoog ñoom waaye nag mu daaranteeg ñoom mënta ñàkk maslaat ñoom ñu ne war na ndax xadiis ko jàngale comme aleykum bi sama wa taa bi ñuy romb léegi yonte bi ne dénk naa leen ngeen di wéy ci ndigal tey topp kilifa waaye nee na mu daarante boobu dafa am ñu ko war a def ak ñu ko def mais koo xam ne boroom xam-xam bu mat nga ku maandu mën a sàmm sa diine ba mu jaxasoog ak maslaa ga dina dugal ci luy firi sa lislaam yow mën ngaa masla waaye boroom xam-xam buy jëng wala jaahil mais nag kooku masla ak jaxasoo bi seen mbir nañ jóg foofu kon mu daarante bi dafa am dafa am boroom kon mbokk yi ñoo wax rek ne tëj wax ne ki nga xam ne kii mooy dund ci suufu nguuru laïcité na jël li ko sécurité bi laïcité bi li mu ko may ci sécurité ak jàmm na ko jariñoo bu baax na exploité li ko laïcité bi may ci diineem jàng diineem dund ko te jéem a tasaare am jàng leen li ko laïcité may li mu xas ba am ci diine na ko téye di ko jéem a yokk te bu sàggam na wàññi ko na jëfandikoo jumtuwaay yi nga xam ne moom la yoon tëral ngir folli ak fal na xër trop ci jéem a tabax jëmmam ba doon ku néew doole tabax jëmmam ci diine waaye tabax jëmmam it ci addina ci ay man-man ci ay xam-xam ci ay xarala na jéem a bennoo ak ay bokkam yi mbokkal pas-pas ñu lëkkaloo déggoo andi am programme soppi kooku day loolu war na ko kooku loolu ñeel na ko ba tey mu war ko ne ñun ci fitna yi diine ak balaa ndax dafa bokk ci xikma suñu borom ci bind jàmbi ci àddina la sàmm kóllëre gim kóllërante boroomam ci diine la nga tënd ko tàbbi ci lépp loo xam day firi lislaamam nay laabire buur ak ñu yor nguur tey soppi lunkar soppi lu bon képp laal kattanam na jël responsabilité bu fal jotee muy fal te bu fal jotee muy fal na nga tëndiku di génn ak violence na nga tëndiku di jëfandikoo li nga xam ne mooy di kéefarloo aw nit te bu dee ab doxandin bu ne ci réewum jaamoo ndax ki nga xam ne mooy jullit bi dund ci suufu ay cité mën naa am majorité la ci réew mi nekk mën naa am minorité la su boobaa su fekkee minorité ci am réew dëkku fa masalan du fa doxandin nga xam ne muahid la dañ koo fat l'islam nag wutal na ay muahid ay loi gannaaw dañ laa fat bul wor ñu la fat bul yàq seen alal bul yàq seen réew bul tuur seen deret te bu leen wor muahid na sàmm kullëre boobu ca fa nekk la ko diine may lépp la ko la ko acte ba may lépp la ko jël sàmm diine ci boppam sàmm diine ci njabootam yar leen ci teeta leen ci te it na lëkkali ko ay bokkam yi mu bokkal réew ma ñu ànd ñoom ñëpp bokk kàddu bokk wax amaan mën nañoo dem ba loolu mën lañ yokk doole ca barab yi nga xam ne fa lay nase di fa noccee te it na fonk téere yi nga xam ne ay fatawa am na téere yuy wax al liqaat wal fatawa fatawa al aqaliyat al islamia ma sha allahu boroom xam-xam yu bari tey bind na ci ku mel ne docteur Yusuf Qardawi bind na ci lu am solo ku mel ne bin Baz ak ñooñu bind nañ lu bari ci fatawa yoo xam ne day àtte mbir mi jullit bi nekk ci suufu laïcité tey doxandiim fa mu nekk ana lu muy def ba sàmm diineem lu ko diineem di may lu ko diineem du may na muy def ba mën a maslaa ak waa réew ma maslaa ak luwaa ba ba am jàmm ba la ko fa yóbbu mën koo am su demee ba nga xam ne nag diineem moom dañ koy foqar ci ci moom naar koy dugal ci kéefër su boobaa al hijra dikk na fa gàddaaye te dellu ci réewam ndax rawale diineem moo gën a rëy rawale loo xam ne da ko fay sakku ci koomu adduna kon bokk yi lii mooy tomb yi nga xam ne tënkoon naa ko ci mawdo bi muy mawdo bi yaatu nag boo xam ne li ma ci bàyyi bari na lool lépp gi ci kayit gi waaye sàmmantik waxtu wi lépp loo xam ne wax nañ ko muy lu jub yàlla suñ borom la ci mbaaxam lépp loo xam ne lu jubut la mi ngi dellu ci ñun maa ngi jéglu bu baax والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته